Cissé Lo Macky dalal ko gannaaw bi ñu teniree seen sen secrétariat national exécutif la su ma juumul xaw ma xamatuma sax naka lañ koy woowee bu baax APR juboo moo fa nar amaat comme Cissé Lo gisee naag Macky Sall ñu bëri nee nañ loolu rek la bëggoon ah, euh, noo jàngatee dernière évolution boobu balaa ñuy xuus ci euh, yeneen actualité politique yi euh, sama jàngat mooy APR parti la boo xam ne ci destin mënul am jàmm ndax dafay parti boo xam ne dafa juddu am ñetti at jël nguur gi déjà loolu rek traumatisme la xam nga parti boo xam ne yaa ngi juddu am ñetti at jël réew ku ne xam na ni problème amul tànk nguur amul alal amul c'est clair xam nga affaire bu fekkoon ni ñoom ils étaient toujours dans l'opposition y a pas de problème mais dañu nekk ci nguur gi nguur ga traumatisme la parce que nguur alal la ay ndombo tànk la ay teranga la et cetera APR ña fa nekk ay nit ay góor ak ay jigéen lañ yoo xam ne dañuy lekk kaani di lekk xorom di lekk suukar di toj kaani donc ku ne da nga am sa calcul bopp am loo bëgg tu mm-hmm. ba pare mu nekk ci contexte bu doy waar c'est-à-dire Macky Sall nekk constitutionnellement ci dernier mandat que ñu wax ko que ñu bañ ko wax ñëpp baron yu bari biir APR ñu ngi projeté sur l'avenir parce que politique nag loolu bu ñu kenn nax hmm. la politique c'est des rapports de force et des stratégies entre des hommes c'est tout politique moom benn kilifa mag nee na ma du diine du tarixa mbiru dox la ci àdduna pour jël nguur gi doxal ko séddoo ko te parti politique aussi la la jariñ ñuy dugg ci ci nguur gi yëpp aussi yu ci bari ndomba tànk lañ bëgg ak mën a positionné wu boobu yëpp nag moo tax du mën a yomb tu symbole bi nga xam ni par exemple Macky Sall dem na recevoir Cissé Lo euh, jàppewuma ni loolu day régler ay problème <coughs> affaire parce que y a des problèmes de fond beaucoup plus importants que ça déjà affaire sax de tout temps euh, Moustapha Diakhaté mi ngi koy wax xëy na il le dit violemment mais affaire ci boppam moo am problème bu fonctionnement xam nga parti boo xam ne structures yi yi ko jiite woon seen mandat jeex na depuis 2016 xam nga kenn renouvelé leen amul benn structure boo xam ne ni par exemple dañ ko teg bu jotee ñu war ko respecter respecter wuñ ko koo xam nga déjà ça ne fonctionne plus comme un parti normal en tout cas mais ce qui est sûr mooy parti au pouvoir du n'importe quel parti parce que un parti n'a pas de problème tant qu'il n'est pas au pouvoir donc division yooyu yëpp ak enjeu yooyu yëpp moo tax ma jàpp ni affaire du parti boo xam ne dafay am jàmm léegi nag li ci des mooy je pense que la vraie question c'est pas l'APR fi mu toll nii ci Sénégal sama gis-gis man la vraie question mooy mission Macky Sall ak deuxième mandat Macky Sall ak mandat boobu enjeu yi mu nekk parce que xam nga mandat Macky Sall bi dafay mandat boo xam ni dans l'histoire politique du Sénégal musul am mandat un mandat d'un homme politique bu mel nii musul am parce que mandat bi mooy mandat bi nga xam ni ci la Sénégal di récolter son premier baril de pétrole. 2022. waaw ci prévision 2024 disons plus ou moins moo gën a juste. mandat bi ci la le premier litre de gaz di génn Sénégal. kooku du mandat bu ndaw. mandat bi c'est un boo xam ni Sénégal dafay dafay quitter maanaam. dañ doon nekk dans un pays boo xam ni da doon bricolé. dem su dem donc un pays pétrolier un pays important. ci contexte boo xam ne aussi contexte bu particulier la parce que man damaa jàpp ni ñaari yoon rek ci histoire du Sénégal lañ mos a xam ni président bii fi nekk bu élection bii bi ñëw ñëwee du présenté wu ñaari yoon la. benn bi Ablaye Wade la mu bañ bii Macky sàll la. mais loolu nag dafa am lu ñuy introduire ci politique. muy lan. mooy mandat la boo xam ne même président de la république xam nga dafa am lu mu wax le 31 décembre nit ñi dégg ñu ko mais c'est très important. Mm. daf ni mënu ma fu ma nekk di wax ci affaire mandat parce que su ma ko waxee kenn du liggéey. Mm. xëy na mu ko waxee c'est maladroit mais c'est vrai. Mm. parce que politicien moo bindoo noonu. yow gëm nga ni gëm nga nii débat boobu c'est un faux débat ou. c'est pas à entretenir. parce qu'il est évident que du ko man li ma gën. Hmm. mooy lu Macky Sall wax. Hmm. c'est-à-dire réew mënta nekk éternellement ci campagne électorale. li ma gëm mooy problème mu mandat. Hmm. problème keneen la war a doon mais warul nekk problème Macky Sall. oui man loolu laa gëm c'est-à-dire problème Macky Sall mooy lan la war a def ci année yi di ñëw. naka la mën a téye réew mi dans un contexte de menace terroriste parce que c'est très important il faut nit ñi xam ci ban environnement lañ nekk. xam nga li ma wax. dans un contexte boo xam ne réew ñu wër daanaka yépp jeex nañu. ci comprends. Mm. ak problème yi fa am. yow nga war a gérer enjeu bu mel ni pétrole xam nga xam nga américain yi bu ñu demee ba biir ak di rey nga xam ni pétrole léegi dootul caaxaan nga ma. donc mm. pétrole ça de plus en plus violent adduna bi ni ñuy donc nga war a nekk ci transition boobu. nekk ci xeexu mandat guddeeg bëccëg. alors que enjeux yi c'est des enjeux fondamentaux pour l'avenir du pays man je trouve que lool du débat donc débat mooy lan moom Macky Sall en 2024 lan mooy nekk place am ci histoire du Sénégal naka lay réussir transition au Sénégal d'un pays agricole à un pays pétrolier naka la mën na léguer le pouvoir le Sénégal sain et sauf c'est-à-dire sain des menaces terroristes. Oui. débarrassé des causes d'insécurité xam na à un successeur boo xam dina mën a continuer histoire réew mi kooku c'est des enjeux extrêmement lourds. Mm. tu comprends il faut nit ñi xam ni enjeux yi am Sénégal ni musul am depuis bi Sénégal existé ba léegi. ok may ñu rek ñu prononcé wu très rapidement ci euh, le dernier fait comme ni ñuy wax politique de manière très large la ñuy waxtaanee mais. Mm. li mujj am mooy li ñuy wax Cissé Lo nga xam ni gisee naak Macky Sall. loolu ndax c'est la fin de la guérilla bi nga xam ne depuis boobu si c'est loolu mi ngi ko doon mënee Birima. que déjà question bi rek ça me gêne. ça me man bokk naa ci war a nekk à l'aise pour wax ci parce que à trois jours des élections marxiste la ñu xeex ñëpp xam nañ loolu. Mm. xeex bu métti. Mm. mais donc war naa ma man maa ngi tax avec à l'aise li ma xaw a gêné mooy wax dëgg yàlla. Mm. Macky Sall mooy sama xarit. mais. mënu ma comprendre si solo soxla Macky Sall mënu koo gis man Birima Ndiaye mënu ma comprendre loolu très honnêtement en tout cas je suis soxla d' accord. si solo Sall Macky Sall président la mën na ko soxla fii ak 10 mu jafe nañ ko bañ a gis mais war nañoo war organiser ba mu war ko mën a gis parce que ñu baree gis Macky Sall ñoo xam ne nag ba Macky soxla soxlaa ku ne ci wetam soxla ku mu war a soxla nit ku ko war a taxaw gisu woon ñooñu si solo la gisoon c' est ça vérité. en tout cas man. ça m'a fait plaisir que ñoom ñaar ñu. retrouvé wu retrouvé wu. nekk ma woon bokk naa ci ñi wax it ci ku ma wax ñun bi ma wax ak ñoom parce que bi ma déggee par exemple euh, ci SN boo xam ne ñun dafa ko jóg ne nañu dàq Cissé Lo dama dama dama triste gën a yërëm Macky Sall. du moom rek la wax. waaw may ma rek xam nga man ñeneen ñi wax dëgg yàlla nag bokk naa ci ñi wax ak Macky mm. <laughs> bokk naa ci ñi wax ak moom nag wax dëgg yàlla. Mm. mais dama koy yërëm parce parti boo gis mu daanu li may wax yéen ay politiciens ay ay ay journalistes ngeen parti bu nekk au pouvoir buy daanu muy PS muy PDS fan la commencé woon dàq ay njëb dàq ay lieutenant ku wax ñu la amul nit dañ ko dàq ku wax ne amul loolu commencé am ci parti rek musiba am na ci parti parti dañuy waxtaan peccoo bu ngeen waxee fii ne Macky Sall ndax bu ñëwee day day régler problème dama dama leen mënu ko régler loolu mënu ko régler mhm. mënu ko parce que Macky Sall mënul fexe ba biir parti bi nit ñu am ay ambition parti voilà la paix un parti boo xam ne tey surtout boo tuddee ne boo jógoon léegi am na fukki nit yi gën a mag ñu hmm. ñoo ñoo ko doole ci parti bi ñooy ñooy kàngam yi. buñ la gisee boo demoon léegi nuyu ci kenn ci ñoom ñu gis leen ne ñaar ngeen taxaw ñu jéem a jëloon nuyu. ah mais c'est ça la vérité. parti boo xam dañu nekk autour de du président mais cohésion boo am seen diggante autour de l' essentiel loolu nag man dama jàpp ni gore gi la parce que ku fi nekk ci APR lu tax ngay tëgg sa ndënd di tëgg sa dënn yëpp Macky Sall la ko jox ma réew bi ñuy fal Macky Sall lañ fal ngeen àndoon di xeex dans tous les partis du monde ku falu falandoo ak ñi nga ñi nga àndoon di xeex bi méttee mais aussi bu ndee ba bañ naan ñu naan ay mandat bi ñuy mandat bi comme ni ko waxee mais man bokk naa ci njëkk a wax nii. waxu mandat ku ko wax da nga bëgg yàq nguuru Macky Sall sëñ bi mandat du caaxaan Macky Sall dafa liggéey 2012 ba 2019 lu bon lu ne ñu jiñ ko ci réew mi lu ne ñu wax ni moo ko fi parce que Macky Sall a de vesture rafet soo daal yoon soo xam Macky Sall a travaillé. lu Macky Sall liggéey boo génnee si foo génn li naan boo gestoo bis boo lambee daj. c'est c'est palpable <laughs> c'est la vérité non dëkk boo def fekk fi projet Macky Sall bu noonu mu def nag ba Sénégal yi wóolu ko ba en 2019 malgré wax ay ñoom waxi charlat ñoom bu ma nu seen critique ngeen na def a réuni Macky Sall mais yoon wala Macky wala jëlaat liggéey parce que tey senegal Macky Sall bëggul dégg ci réew mi réew am jafe jafe jafe ngeen yaakaar ne Macky na ci réew mi te bëgg fi bàyyi loo xam tourne restaurant du Sénégal ah ba ñëpp gis ko problème de sécurité la ñu taxaw naan la mais nga gagné tey Macky Sall nga defagul ko ku ne taal sa télévision naan wuy bëgg a ji pour 2024 parce que sa intérêt bu nga xam Macky Sall n'est pas en tout cas man li may ñaan les éléments de l'APR mooy ku dund sañ nga bëgg bëgg am lu baax kenn ko tere mais lu nekk ak waxtoom waxtu wi ñu nekk mooy réew mi dañoo bàyyi ñëpp ñu mënoon a yor réew mi sa na sax ko yor Sénégal yi bañ leen jox ni ko ñoom pour ñu doxal Sénégal nañ nekk derrière le président Macky Sall derrière l'essentiel liggéey pour le peuple Sénégal le léeg loolu ñu ngi nax seen bopp ñu ngi nax loo xam ni buñ taxee seen kaw rek daat et le payer cash demain